ko waral ku xam commune Tivaouane-Peulh ñàgg ñàkkul ab xam ne e, dëkk yàgg ñoom ñoo ëmb commune bi e, mën naa ko citer benn waaye kon day jël temps waaye e, ñu bootu nag ci département de Rufisque depuis ay at maanaam ñun dañoo judd rek suñu papa yi ak suñu yaay ñoom ñëpp ñu bootu ci département de Rufisque ñun nag yaakaar naa ñun ñoo gën a jege tey Dakar sax Rufisque bi ngay gis waaye tey suñu commune moo gën a euh, ñàkk la nga xamante ne ay jumtukaay la ak loo xamante ne luy war a développer commune la euh, te loolu yëpp boo ko xoolee nga xool jafe-jafe yu ñu am te loolu suñu maire mu ngi ci def kémtulaay kattanam mais moom kese mënu koo def ndax ñun suñu box bii dañoo am ay nit yu jàng am ay jeunes yoo xam ne ay cadre lañu dañoo jàng ba am seeni diplôme ñu am ay nit yoo xamante ne ay jigéen lañu ñu def seeni formation ba nga xamante ne war nañoo mën a am liggéey yu ñu def loolu yëpp amul ci suñu commune bi amuñu benn nit koo xamante ne représenté na fii dara ci assemblée nationale wala conseil économique et social wala nga ne PCA wala nga ne lenn loo xamante ne rek eh, am nañ ko ci commune bi kon suñu parti loolu moo ko gën a so eh, tax muy sooxe fii eh, te loolee yëpp maire rek moo ci nekk ak leader yi politique yi nga xamante ne ñoom ñoo fi nekk ànd ak monsieur le maire di liggéey ñoom suñ ci deful dara kenn du ko ci def ñu bëgg président Macky Sall nga gestu suñu commune ndax sécurité bi ci suñu commune sooxe na fi te ñun ñu ngi ñàkk suñuy waajur fii ak suñuy doom ak suñuy rakk ci ay li nga xamante ne eh, sécurité rek moom moo tax kon président Macky Sall ñu ngi lay woo di la di la wax nga jàppale ñu am poste police bi ci commune Tivaouane Peulh ñàkk ñàkkurab pour ñu mën a sàmm suñu kaaraange ndax suñu waajur yi la ñu am eh, ñu bëgg président Macky Sall lépp loo xamante ne yaa ngi koy def ñun gisaguñ suñu bopp ñun commune Tivaouane Peulh ñàkk ñàkkurab ndax tey soo fi duggee ci ay tali yu xonq la ñuy dox su tawee tuuti taw bi jot a ñëw ñëpp seen yére yi ñu ngi yàqu te ñun ñu ngi ñu ngi jóge jóge Dakar te président Macky Sall bul fàtte ne yow yow fii rek yaa fi mos a gañ am saa boo demee élection koo dendal fii da nga koy daal ñun tamit bëgg nañu nga gëstu suñu population bëgg nañu am pakaseen bëgg nañu pavel ñu suñu tali suñu lycée bi bëgg nañu suñu lycée bi nga xamante ne. délibéré nañ ko ba mu génn lu mu gën a gaaw président Macky Sall nga jàpp ñu suñu lycée bi mën a taxaw ndax suñu xale yi ak suñu rakk yi ak suñu doom yi ñëw ëllëg dañoo war a jàng ndax njàng mooy yorub réew président Macky Sall département bi dañ ko dénk ay nit te ñu ko dénk ay politiciens yoo xamante ne ñu yàgg lañu dañoo ancien léegi ay xale yu ndaw ñoo fi nekk yoo xamante ne ñoom ñoo war a doxal du ñu ànd ak ay nit yoo xamante ni dañuy dem ñu gàñe leen ba ñu périm ñëw fii di xaaj suñu commune di xeex suñu maire loolu duñu ko nangu. ñun nag balaa ñuy jëlaat suñuy carte di ko voté man APR cent pour cent mille pour cent waaye balaa ñuy voté waat à 100 pour cent pour joxaat la ndam danga wax ak ñun nag wax ak suñu population président Macky Sall ku xam xam Bassirou Ka xam ko ci président Macky Sall dem cee seey duma ci du ma xooj mbiram waaye nag dafa jot ñun askan bi saa bu ñu leen soxlee dañuy sol mbubb dugg ci seen kër yi wax leen kaay leen woteel président Macky Sall bu ñu génnee li ñu leen waxoon duñu ko def te su boobaa ñun tamit dañuy am ay kers kon président Macky Sall waxal ak leader yi nga xamante ne ñoo nekk ci 4C bi wala ñun nga détaché ñu yóbbu ñu Kër Massar Tëngéej mu ngi bëgg a rey balaa ngaa dem foofu wuti carte d'identité da ngay sonn balaa ngaa wuti foofu carte judiciaire wala dara da ngay sonn suñu élèves yi sonn nañu dañu war a am suñu indépendance wala nga defaan ñu suñu département bopp ñu am suñu indépendance ndax ñun loolu lañu bëgg waaye bi ñu mën a nekk Tëngéej leader yi fu ñoom dañoo daanu suñu maire dafa gagné waaw président Macky Sall loolu laa bëgg nga dégg ko suñu maire dafa gagné fii massivement ci commune Tivaouane Niaga Niakoura am na ay minis yu fi nekkoon dañu leen a gagné kon du ñu ñëw nii léegi di piloté suñu commune di jéem a xaajale suñu jeunesse loolu duñ ko nangu élection yaa ngi ñëw nag dama bëgg président Macky Sall nga lijjanti loolu ñu ngi wax ne waa Tëngéej dañu war a def jokkoo ak Macky dem war a ñëw ñu ngi koy rafetlu bu baax ndax du ñuy d'accord jeunes yi nga xamante ne dañoo beroon seen liste bopp demal seen bopp ñu dem ñu gañe leen ñu ñëw ñun dañuy ñëwaat di jiitewaat suñu jeunes yi nga xam ñoo gañe woon loolu su amee vote am loolu duñ ko nangu président Macky Sall jëlal say responsabilité su commune bi ci ci 4C kon il faut nga gungi suñu maire nga jàppale ko gungi suñu leader politique yi nga xamante ne ñu ngi lay jàppale fii man soxlawu ma dara dama bëgg rek luy doxal Tivaouane Peulh ndax loolu su amul dama koy continuer di xeex damay wax ni suñ ko réglé wul commune Tivaouane Peulh Niaga Niakoul Rap kenn du voté ñun ay affaire lañu waaye du ñu voté